xaaj bu jëkk bi ci juróomi xaaj yi yeesu def na kéemaan yu bare tey dinañu waxtaan ci mbirum liggéeyu yéesu yéesu doon na wër galile di jàngale ak di faj faj na ñu feebar ay gumba ay lafañ ak képp ku ñëw ci moom ak ngëm dàq na ay rab yu jàppoon ay nit dekkil na ñu dee géej geeg ngelaw li déggaloon nañu ko niroowul woon ak benn yonent bu ñu mas a gis benn bés ku gaana ñëw ci yeesu gaana gi ñaan yéesu ngir mu wéral ko yéesu yërëm ko ne ko bëgg na mu wér te saasa waaja wér ñu teg ci ay fan yeesu di jàngale ci biir genn kër ñeenti nit ñëw ànd ak ku lafañ waaye mënuñu woon dugg ci kër gi ndax nit ñu bare ñu bët kaw xadd ba teg lafañ ba ci basaŋ yoor ko mu wàcc te diggu mbooloo ma bi yeesu gisee seen ngëm mu ne lafañ ba sama waay baal nañu la say bàkkaar ay xutbakat ñu nga toogoon te nit ña ñuy wax ci seen xel yàlla rek moo mën a baale bàkkaar noonu yéesu laaj leen lan moo gën a yomb ci diggante baale bàkkaar ak faj nit noonu yéesu doxloo lafañ ba ngir won leen dooleem nit ñi waaru tey màggal yàlla yéesu faj na nit ñu bare ci jàngoro yu nekk yàgg na bi yonent yàlla esaayi waxee ci mbiru liggéeyu musalkat bi noonu gumba yi di gis tex yi di dégg lafañ di tëbentu ni kéwél te làmmiñu lu ne tel ak mbëg léegi ma laaj leen benn lu yeesu wax lafañ ba ñu ca kaw xaddu kër ga sama waay baal nañu la say bàkkaar ñaar kan moo am sañ-sañu baale bàkkaar yàlla moo ko am ñett lan la yeesu def ngir firndeel ne am na sañ-sañu baale bàkkaar ak faj nit ñi itam yeesu dafa faj lafañ ba